Euh, ministres yi euh, gouvernement bu bees bi génn na actuellement trente neuf ministres lañ euh, Amadou Ba sax nee na gouvernement bi gouvernement bu mission lay doon ak combat kaddu yooyu noo ko jàngatee. mission mooy lan ban mission de c'est un gouvernement qui élire Amadou mooy mission bi la mission c'est combat bi mooy combattre l'opposition la mission c'est élire Amadou Ba et perpétuer ce qui était là avant Amadou Ba c'est-à-dire que douze ans yi fi Macky Sall def yëpp day génn day loolu dem loolu la wax kooku c'est un aveu de taille et personne ne s'attend à ce que soit. mais est-ce que li ñu wax ni yéen est-ce que lâché woo leen yéen maanaam kuje politique yi ndax léegi gisatuñ benn mouvement wala benn manifestation bu ngeen def actuellement da ngeen leen bàyyil yoon bi ñuy xalaat yu déroulé doxal amatul leneen lu ngeen def yéen kuje politique yi kenn déggatu leen fenn. mais Abdourahmane Diouf. Mhm. opposition la bokk. waaw bërki dem mi ngi dem Kébémer ñu ñu arrêté ko dañ ko arrêté dëpp ko ku bëgg dem ñu ne la doo dem. boo bëggee def meeting ñu ne doo def meeting buñ demandé marche ñu ne du doo marche. est-ce que loolu raison la pour ngeen war a mën a toog croiser ay bras. nan la ñuy def. kon on continuera à se battre mais yow ñoom ñoo yor doole ji yor loi yi yor administration bi ñoo yor gendarmerie yor police yor justice ñoo ko yor. Hmm. te lu leen neex lañ ciy jëfee. Mhm. dinañ ci jëfee seetuñ est-ce que lii yoon la est-ce que lii kii lu leen arrangé lañ ciy jëfee xoolal mille six cent personnes yi ñu tëj mille six cent personne nga tëj leen am kenn attewu leen rek lu comme li ñuy wax une lettre de cachet à l'époque au temps de Louis XIV tac c'est le roi qui a écrit <laughs> foutez-la en tôle te met en tôle c'est ça qui se passe <laughs> per loolu yéeme na ne ah, par rapport ak ministre yi aussi euh, gis nañ fi Sidiki Kaba ñu ne moom moo nekk léegi ministre de l'intérieur Euh, Ismaïla Madior Fall moo nekk ministre des affaires étrangères euh, ki nga xam te moom moo ne Antoine Diome nekk ministre du pétrole maanaam loolu yow nan nga ko jàngatee <laughs> mbir yooyu. ku nekk mini nga ne kan de l' intérieur Sidiki Kaba. moo nekk ministre de l' intérieur de l' intérieur léegi. waaw Ismaïla Madior Fall moo nekk ministre des affaires étrangères. c' Antoine Diome moo nekk ministre du pétrole. du pétrole waaw ñett ñooñu nekkoon euh, surtout Antoine Diome. kan moo yor justice. justice nag junior bu fekkee mën ngeen ñu ci jàppale. Euh, kan moo yor justice dina ci am solo lool ñu xabaar ñu ko mën nañu continuer dinañu wax kan moo nekk kan moo yor justice voilà. Sidi Kaba mën nañ koo def ministre de l' ndax moo nekkoon. waaw Sidi Kaba mooy ministre de l' intérieur léegi. waaw xam moo nekkoon force d' waaw waaw voilà. moo ne justice laa bëgg a xam. justice nee na gannaaw mais Sidi Kaba daal li ma xam ci moom jàpp ko ci moom. Hmm. moo nekkoon avocat Karim Wade. Hmm. ba ñu ko nommé. mu hmm. takk ay kaakeem daw dem wàcc ko. d'accord loolu daal laa jàpp ci moom. muy muy muy. Euh, mu nekkoon avocat Karim Wade. ba ñu ko nommé ci gouvernement Macky Sall mu jël dossier yëpp sànni ko Karim Wade daw. Sidiki Sidiki. lu acte boobu noo ko jàppale. Ah, noo koy noo koy jàngate seeta rek. yow kay laay laaj. déet ah jàngate ko nu ñu koy jàngate rek. Hmm. d' accord Massamba bu fekkee mën ngeen. ñu jàppale ci le ministre de la justice actuel. Sidiki Kaba c' pas du solide. gars yooyu tous sont pas du c'est mais da ngeen a waxoon ne yéen seen opposition bi seen njort moo di ne gouvernement bi ñu fi teg comme ni nga ko waxee léegi ci ci biir waxtaan ne dañ fi nar a taxaw ngir mbuxum élection yi di ñëw ak euh, xeex Ousmane Sonko nu nga ko jàppee mais li nga gis nii dafa mel ne. ba tey ñi fi nekkoon na fi ne waxu waxuma kenn ku fi nekkugul ñii ñii ñoo fi newoon génneel ma keneen c'est une permutation. Lat Diop Lat gis nañ ne léegi moo yor sport. kooku it bettul ñëpp Lat Diop loolu la bëggoon. finalement sport la bëggoon avant ba yàgg ñu yóbbu ko Lonase mu gis kër ga neex bëggut a dem gars yi dindi ko def ko ministre de kii c'est pas une du surprise déedéet c'est pas une surprise. d'accord Aïssata Aïssata Tall Sall moo nekk ministre de la justice. de la justice. xam nga Aïssata lu tax mënumaa wax ci moom. Hmm. je crois que mooy tane Madior sincèrement. ah bon si si elle politique bokkut ak Madior. électrique nekkoon na ministre de l'information temps wu Abdou Diouf ak Tanor ba fii nekk donc donc elle est très politique lii ñu ko jox war na koo xam xam na nu mu koy defee ak ni muy lenqee ni ni muy kéeg nit ñi tey c'est euh, quand même yàgg na ci fii te kilifa la waaye nag comme c'est la femme de mon frère mënuma cee wax ci moom dara <laughs> d'accord je lui souhaite bonne chance mm-hmm. jigéen la mais mën na faa réussir mm. je lui conseille surtout ay Aïssata taal bu fa bàyyi ëllëg loo xam ne lii buñ ko génnee da nga ci am kersa te réew fi nga dëkk bari fi bokk am ay doom yoo xam ne yi kilifa lañ sa jëkkër di kilifa donc na nga seet ni ngay doxe te yëf yi ne la wóor ne jeex na d'accord alors euh, mais li lépp yow jay ji léegi waxtaan waxtu waxtu wi ñu la woon jeex na hmm. kii di Ousmane Sonko hmm. lan nga jàpp na moo nar a nekk ëllëgam ci politique ëllëgi ku ne yàlla moo yor sa ëllëg yàlla moo yor ëllëg Ousmane Sonko. yow muy xam naa lenn ci moom. Hmm. ku dëgër bopp la du bàyyi. ku dëgër dëgër bopp la yàlla may na ko xam-xam ab jullit bu gëm yàlla la Ousmane Sonko te deuxièmement ku am fit la te dëgër na bopp yaakaar naa c'est pas quelqu'un qui va lâcher prise. bu ko yàlla waree def président de la république bu ko ko deful bii dana ko ko def beneen. beneen waaw te xam naa ne moom ci boppam boo ko laajoon loolu la gëm. d'accord Déthié moom moom ci biir yi Déthié Fall moom am nga yaakaar ci moom ci élection yu dëgmalam. yii ñii ba Déthié leen di battre aux prochaines élections c'est Déthié qui va les enlever et qui kooku amu ci benn doute ndax ñii danañ. dem mais Déthié moom ban kii la am ban taxawaay la am ci wàllum politique nag boo xam te ni. taxawaay mais Déthié war na war na mën a jël réew mi aussi. mais pourquoi. Déthié ku ko fi ëpp diplôme ci gars yi ñu lim fii amu fi. d'accord amu fi après. mbir yi du diplôme kese de. ah mbir yi du diplôme kese de. déedéet mais ci la dama laa bëgg a wax Déthié a été avec Idriss Seck pendant combien d'années et man ba ma nekkee Idi tout le boulot c'est kii qui le faisait Déthié était parlementaire pendant cinq ans Déthié a monté monté des industries loo bëgg leneen nit la koo xam ne kii son ancien patron nee na ma lu mu la wax du dañ. te du jël alal kenn. est-ce que di ngeen am parrainage sax bay naan. parrainage réew mi laay laa de de ci am na parrainage am presque bouclé na ko parce qu'il est parti très tôt ci ci bouclé na presque parrainage am mais nag je demande au Sénégalais yi nga xam ne saa bu may wax ñu yaakaar ne man mii am ci man yaakaar. ne yow booy patriote yi booy patriote yi ñoo ñoo doon amoon ci yow yaakaar te instant comme que viré nga moom sénégalais yi ci ah, boppam laa la wax booy patriote yi la doon sopp ak bëgg di la yóbbu ci ay moto yëpp bu ñu yégee ne yéeg yaa ngi ci keroog ba ñëw ci moto mooy suñ meeting booba te ma bëggoon a ñëw def émission waaw waaw waaw waaw mais bu ñu yégee ne yaa ngi ci dëcc léegi mbaa duñu dellu ginnaaw déedéet dëcc ak ñoom benn lañ dëcc ak ñoom benn mais on est ensemble dans les mêmes réunions hmm. buñ ma saa def réunion réunion yeew yi hmm. mais Déthié ngi nii Tano kii ngi nii. Euh, comment il s'appelle euh, euh, Sonko ngi nii ñu taxaw. def réunion mener des actions commune waxante demante. mais néanmoins <laughs> mais bu élection jotee loolu lañ waxante woon sax ku ne berceval la. bu ñu amee deuxième tour ñëw àndaat comme gars yi lii ñu def. mi ngi Macky Sall ngi nii Aly Ngouille Ndiaye ngi nii kii ngi nii kii ngi nii. Hmm. xam nga yooyu yëpp ay naxante la bu amee deuxième tour àndaat. d'accord woteel Amadou Ba woteel Aly Ngouille Ndiaye. wateel ADD. wateel Maam Boy Diaw wateel Maam Boy Diaw yëpp mburu foofu ko farin benn lañ acca looy tëjee dañuy naxaatee rek looy tëjee man daal sénégalais yi li ma leen di wax mhm. gouvernement bi bettu leen ndax gars yu bari waxoon nañ ko mhm. deuxièmement li ma leen di waxit bu leen yaakaar benn benn yaakaar ci gouvernement bi bu leen am benn yaakaar boo xam ne day tax ngeen woteel Amadou Ba ñi ñëpp daal boole leen leen le vingt cinq février ngeen jalax leen loolu leen di ñaan te yaakaar naa da ngeen ko def ndax ñii nekk nañ fukki at ak ñaar lii ñu fi def bu leen séentu dara dara dara loo xam ne dañ leen amal njariñ gars yi di ko def donc bañ leen waaw. jërëjëf euh, Père la ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci waxtaanu am solo wi cëral li waxtu ñu cërale woon jeex na euh,